ci guddi gu bët setagul te boppam far tëju ràpp mu mujj mel ne rek ab dongo buy jàng ci di ubbiwaat ay téere ka saytuwaat yorinu réew mi moo nekk ci xaruña ko l'observateur yeneen xaruña ko journal bi journal bi nañu Macky kay ci dëgg-dëgg wér na ci xeex bi ndax fi mu ne nii kay ci exercice yu metti dugal ci ñi guuta ba pare nu xew xew waaral di ko seetaan ci guerre bi du ñenn rek ñu du ministre mi ndax ci diggante atum 2012 ba 2019 ay am na ci ñoo xam ne jël nañ lu toll ci juróom ñetti liggéeykat fay leen lu toll ci juróom ñaar fukki million ak juróom ñett fukk ci suñuy koppar ëppatal nelaw kon kay Macky dugg na la rubba rek journal bi ne moo taxit nag Macky jël nay dogalam fi ne nii kay toj tabaxaar rek la bëgg ne ministre yi moom dina am ñoo xam ne dina tàqali ko ñoom ba abadan daayi ma nappet di koy feelu naan ko loolu lépp génnewula ci xanaa nga tey te amuk dal men ci xaru njëkku les échos yàlla xaru njëkku journal bi fekk fa ku naan Alioune Tine Tine na ca dëgg-dëgg taxaw gi ñu taxaw ci xefi waa l'inspection générale d'État moo du dëgg te du yoon dañ leen a war a may akuk dal ba ñu mën a xam li ñuy def ak wax waaye Tine yamu ca ndax nee ndax nee na rapport bii ci jamonoy Senghor bañ ko daan dafa nekkoon jumtukaay bu daan tax ñu ñuy càmbar ak saytu yorinu réew mi waaye seet nañ ba seet ci jamono jii moom dafa mujj nekk rek arme bu ñuy xeexee ci ci diggante kujje yi ak ñu yore réew mi surtout quotidien ne ko may ma tuuti rek ma ñëw ndax biib gouvernement ak moom kenn mosu koo gis moom kay ñii dañoo war a tëj seeni buntu rek dem far noppalu ji benn ñi ko defoon ñeenti weeri lëmu te dootuñu ko dolleeti ñoo nekk ci xadu ñëkko vox populi yëlla xadu ñëkko journal bi journal bi nañu jawbe moom dootuñu fàtteeti woppi covid 19 ji ndax ci diiru juróom-ñett ay bis ñàkk nañ ci lu toll ci juróom juróomi milliards waaye journal bi yëmu ca ndax nee na marché jawbe bii nga xam ne bokk a xam million ci suñuy koppar moom koy wopp ci bu jeexul dinañ yanu seeni kaaka dem yalwaale ji wala ñu tumuranke ñi tumuranke te taw bi demagul fenn ñoo nekk ci xaru njëkku laa tur bi nag les échos yéen journal bi laa tur bi nañu ndakaaru moom taw baa nga fay def lu dara jërul ndax am na fa benn waxambaane bu am lu toll ci fukki at ak juróom yoo xam ne courant moo ko maas ba mu jaare ca ñàkk ba bakkanam vox populi ne ko may ma tuuti rek ma ñëw ndax bu yemoon foofu sax mu neex na am na benn soxna su am lu toll ci fanweeri moom tamit li wokk xale bu góor boobu moo ko xuri courant moo ko maas ba mu nekk fële ca réanimation ma nga ci diggante dund ak dee keeg deewam mat at xaat te ñu koy jooy te noppee guñ ñoo nekk ci xëru njëkku Les Échos yéen xëru njëkku journal ñu fekk fa socialiste yi ñuy fàttaliku seen deewu patron bii di Ousmane Tanor Dieng yéen xëru njëkku journal bi ñu fekk fa kuñ naan Bibakor Faye mi def ay témoignage ci Tanor Faye nee na ca dëgg-dëgg man gis naa ko ñeme dëgg ba tàyyi waaye ku mel na Tanor mosuma koo gis moom da daan dem ba jeex te dëgg moom fu mu ko daan fekk rek fala la koy baaji Abdoulaye Wilane la ko may ma tuuti rek ma ñëw bilaay li nga wax lépp dëgg la waaye Tanor mii deewam gi dafa gaaw ba egg ca lool ndax ba mu demee ba léegi mat na at waaye duñu ko mas a fàtte mi ngi ci suñu xel te duñu mas a dañ ki dul dañ ci xelu askanu tam liggéey fi lu rëy ba ñëpp di ko wax moo nekk ci xët wu njëkk l'observateur yéen xëlu njëkk journal bi journal bi nañu ca dëgg-dëgg transporteur Ndiaga Ndiaye bi génnoon àddina jamono jëla weesu ay ay mbiram jaaxal na seetlu nañ ne bi mu génnee àddina néegam bàyyiwu fa lu toll ci ñaar fukki junni li mat a jaaxle dëgg moo xëru ñu ko Les Échos yàlla xëru ñu ko journal bi ñu fekk fa ki ñaan Pape Sagna journal bi ne ñu Pape Sagna dafa jëlu paakaam bu ñaw di ko jamu patron sinoisam bi doon tëdd na la sim ndax jam na ko lu toll ci fukki jam-jam ak juróom-benn eli ko du leen na dafa nekk góor jigéen wala ko